لها شرف كذا مجد لعلي الخير ساني لها شرف كذا مجد لعلي سرور في ربوع الخير ساني لها شرف salaamaaleykum mbokk internet ni Seneweb ñu nuyu leen di leen jaajëfal di rafetlu ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak Seneweb TV seneweb.com ak bépp suñu ay plateforme wàccaayu gàmmu la ñu dal di wax ba tax na ñu déparé Ndakaaru ngir jëm fa nga xamante ni moo di diwaanu Kaolack waaye nag bari loo xam ne umpale ngeen ko lool diggante Ndakaaru ak fi nga xam ne moo di Kaolack saa ngeen fi rombee gis bërëb bi wala màkkaan bi nga xamante ni mu taaru lool nekk loo xam ne tam bari lu mu koy signifié ko wooyee maanaam mit loo xamante ni lu nit mënum naatable la loolee moo waral tey ji ñu fas yéene dal di yegsindi ci biir dëkk waaye itam dal leen ne lépp moom la dala làmbool moo di bërëb bi ñuy wooyee wala dëkk bi ñuy wooyee Sagne Bambara ci ni mu gën a gaawee rek donc ñu doxantu ndànk ngir gis ñi nga xamante ni ñoo bokk ci bi la dëkk ak taxawaay bi nga xam ne jot nañu ko ci am ngir rek ñu dëgtal ñi waaye tam wax ñi dëkk bi nga xamante ni daal naa am lu mu bindoo ak lu mu taaroo. salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam ñu ngi lay ziar di la nuyu. nangu ziar marhaban ahlan wa sahlan wa bikum ñoo ngi leen dalal ak jàmm ci dëkk bi di Sagne Bambara. di dëkk Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo bisimilah ñu àgg ci xalif bi di Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo bisimilah. donc ñu dugg rek xool biir dëkk bi la mu làmbool la mu boole ci li nga xam moo de ay ferñeent waaye tam ci tabax ak la mu mënti doon bokk na ci ay réalisation yoo xamante ni yu bari lool te wute la ci ni mu gën a yaatoo rek gën a sakkan. لي سرور في ربوع الخير ساني لها شرف كذا مجد لأعلي في ربوع الخير ساني لها شرف كذا مجد لأعلي سرور في ربوع الخير ساني لها شرف donc ñu yegg si waale fii mooy bërëb bi ñuy jullee maanaam ñu juddee ko juma. Hmm. waaw juma moom boo ko déggee mooy bérébu jaamukaay yàlla. Ah, juma bi nag Cheikh Mouhidine moo ko def fii moo ko ah, tabaxee quatre-vingt-douze millions ah, mu nekk béréb boo xamante ne eh, bérébu jaamu yàlla la li ngay gis nii nag lépp loo xamante ne nga gis ko fii mu nekk vert blanc ginnaaw yàlla yonent bi Cheikh Mouhidine moo ko fi def. te lépp li ngay gis moom mu liggéey ko ah, mu nekk jëmm bu taxaw ah, du loo xamante ne Cheikh Mouhidine dafa woo ingénieur ah, kaay nga desenel ma wala nga tracel ma moom ci jëm boppam moo jël big ak fëyam tracé ko xool nu mu gën a baaxee nu mu gën a yanjee mu defee ko noonu mu daal di ko jox maçon yi ñu ñu tabax la ko. moom moo doon architecte boppam. sëriñ bi mooy léppam waaw lépp loo xamante ne moo ngi koy liggéey rek sëriñ bi mooy mooy mooy def lépp ci moom lay départ. ba ci bërëb bi rond point beeg lépp bu ñu gis nii yëpp moom moo ko def. li ngay gis fii hôpital bi sëriñ bi moo ko tracel boppam euh, jumaa bi moo ko tracel boppam fu ñu jóge noonu di mat na di jëlaan fu mu tëdd noonu tëriwaayam tabax boobu tiim ko. Cheikh Mouhidine moom moo ko tracé boppam barab bi nga gis ni nga xam ne waajuram ak maamam fii lañ nekk di dallu Cheikh Mouhidine ba léegi moom moo ko tracé boppam fi ngay gisee ni mooy Kanka Moussa bi mooy triangle bi mu tuddee ko Kanka Moussa nga xam ne mooy premier buuru africain bu njëkk a dem aji Makka pour kóllëre ak wone nit ku ñuul yàgg naa di def jaloore ci diine islaam yàgg naa def jaloore ci àdduna bi moo tax Cheikh Mouhidine duppee bërëb bi di eh, musallasu Kanka Moussa. bu bërëb bii ñu gis rond point beeg lu muy taaru taaru lu mu mënti mel lépp ci xel xam. lépp ci technique ak ci xalaat ah, Cheikh Mouhidine la ko def bërëb bi ngay gis ni mooy bustaanu ahlu Badar. Hmm. Serigne bee ko defar tuddee ko waa Badar. mooy trois cent treize saxaaba yi àndoon ak prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem xare di euh, xarewu Badar Sañ Bambara bu ñu ko waxee mu bokk ci bërëb yi nga xam ne daanaka yu gën a mythique la ci biir Sénégal tey ñu ngi fii ci biir dëkk bi bokk na ci bërëb yi nga xam ne ci ndorteel maa ngi leen doon daal di wax mu di yoo xamante ni kilifa gi ni mel jot na ko fi amal lii ci ginnaaw bokk ci di ab boo xam ne tolluwaayam nekk loo xamante ni mag na lool waaye ngir gën a xam la nga xam ne jot na ko làmbool ñi fi faral di ñëw paj mi na mu fi war a mën a demee dañuy doxantu ndànk dugg ci biir fekk ñi nga xam ne ñoo fa nekk ngir rek ñi wax ñi li nga xam ne moo nekk ci bile bërëb donc ñu ngi ci entrée bi mu di centre de santé Zeynoul Abidine Diallo bu Sagne Bambara moom moo nekk nii donc rek ñu dugg si ngir xool waaye tam waxtaan ak ñi nga xamante ni rek ñoo nekkee ci bile bërëb salaamaaleykum góor gi maa ngi lay ziar. fii mooy centre de santé bu Sagne Bamba. waaw fii la kay Jeynul Abidin Diallo. moom tur bi fu mu jógee ak lan moo ko sàkk. tur bi nag moom njaboot la woon ci sëñ bi daanaka comme sëñ ci wàllu lasaraal bi mu yëngu dafa amoon koo xam ne dafa amoon njaboot fekkee njaboot gi dafa jëflante woon ak yeneen bindaafoon. léegi keroog ba mu muccee nag daanaka bindaafoon yooyu ñëw ci moom daanaka jël xelam ba nangutu jël doomam ci lañ ñëw ci sëñ bi ba ñëwee ci sëñ bi nag. ñu ko nag ñu tiis ko seen soxla seen bi boo meen seetale mu ne leen nañ dem génnee sarax benn xar nañ ko jox ab koo xam ne shérif la buñ ko ko joxee nañ dellu si ñoom ci lañ dem ñoo ne def nañ sarax bi ndekte daf ñu ko ci leneen sëñ bi jox garab ba mu jëlee garab bi bañ ko jëfandikoo ñu am ñu delluwaat sagom léegi nag mbindaafoon yooyu duggoon ci ñoom ñëw ci sëñ bi ne ko dox nga suñu diggante ak koo xam ne daf ñoo tooñoon kon danañ fay ko ci yow sëñ bi na leen nag ah maa leen di xar léegi nag jamono yi fekkee yàggul ci la papa sëñ bi wàcc ci liggéey léegi nag bépp sëñ bi ci la doon wétalu ko xale bi papam ngir dafa niroon ak papay sëñ bi nag ci la jamono yooyu ñu ngi tabax jumaa ji ci la mbindaafoon yooyu ñëw fekkee sëñ bi mi ngi leen di xaar léegi nag comme ñoom fi gën a bugg foofu lañ lay nattoo daanaka ci lañ ñoo fekk xale bi ñu ngi jël ciment yi am beneen saret bi yegg si saret boo xam ne jëlee na une tonne ciment ba xale bi ñëw ba jege saret ba mu laalee saret bi mel na yaa yëkkati saret bi rek jóor ko ci kaw xale bi noonu lay yuuxoo ci ronu ciment yi bu wàcc liggéey léegi ginnaaw gi nag ba sëñ bi tabaxee hôpital bi comme ci wàllu faj ci la xale googu wàcc liggéey te xale la bëgguloon tuuram réer moo tax ba mu tabaxee hôpital mu jël hôpital bi delloo ko tuuram moo waral Zeynoul Abidine Diallo bi doomi sëñ bi la bi donc moo nekk xale bi tur bi moom la ñu jël daal di ko tuddee li nga xam ne. hôpital bi comme moom ci cadre faj ci la wàccee liggéey kon bu defalee bërëb fajukaay ñu tuddee ko ko kon daanaka wii naan bu nekkee bor la tamit am na loo ci wàññi. bu ñu waxee bërëbu fajukaay dañ fi am ñu bari ñoo xam ne ñoom ñoo fi faral di nekk sëñ bi yow tamit ñu fekk la ci biir bërëb ñoo ngi lay ziar tur beeg sant bi. man Abou Keita laa tudd euh, maa ngi lay man maa yor pharmacie bi nu liggéey bi demee ak tolluwaay beeg yooyu nu mu mel donc nga wan ñi rek. ah liggéey bi voilà voilà léegi pharmacie baa ngi nii dañ koy jënd dañuy jënd. bu jëndee dem di euh, jaayaat daal kii bu yem rek lañ ci def am na marge bénéficiaire mais dafa yem dégg nga pour dimbale askan bi daal dimbale askan bi mais eh, est-ce que di ngeen di dem léeg stock bi comme di am ay jafe yenn garab yi ak yan ñoo fi faral di di di di jaar. waaw xanaa kii stock bi li manqué euh, fi mu ñun dañuy jënd di kiyaat parce que xam nga toujours booy kii di nga am fond xam ne de roulement la. waaw sa capital yëpp doo ko utiliser mu nga xam ne boo kii di nga mën a garder sa bénéfice ab après euh, nga am fond bi nga xam ne di nga war a dem mën a jënd ay garab xanaa kay peut-être lii kii des fois nga dem jëndi fekk mu am rupture au niveau au niveau des waaw au niveau national léegi moom mooy problème bi daal waaw loolu rek mooy problème ma sans cela moom pour fond bu ñu jëndee kii loolu posé wul problème. mun jël garab moo fi faral di ak dëkk bi nu mu mel ak. paracétamol comprimé fer fer yi ay ibuprofène comprimé magnésium yu ñuy wax dinapar waaw yooyu yëpp bokk na ci ay spasfon pour biir buy métti ay panadol siro pour xale yi euh, nu mu tuddati amoxicilline sirop euh, ak ay produits yi nga xam ne pour jël perfusion la kii ay soluté pour perfusion waaw ah ah ah oui ah parce am nañ garab <laughs> on on se on, on se daal. amul benn on se pas daal. non non on ne se pas. ñoom ñooy def consultation yi voilà. Euh, salaamaaleykum. Euh, tur beeg sant bi naka la. Codé Diop laa tudd infirmière maa ngi fi nag depuis ouverture hôpital bi ba tey maa ngi fi man maay gérer médecine bi avec la maternité les CPN. les vaccinations et les consultations. nu liggéey bi demee ci dëkk bi biir hôpital bi ak malade yeeg yooyu lim bi nu muy faral di toll. waaw lim bi ñuy recevoir moom mënuñ ko compter parce que village environnant yëpp fii la ñuy ñëw même après Gandiaye village yooyu fii la ñuy ñëw di def seen prestation waaw dañuy recevoir maladie te aussi maladie li tax ñuy ñëw peut-être accueil bi ak prestation bi dañ ciy gis seen bopp moo tax. ñuy bàyyi Gandiaye am na poste mais dañuy bàyyi ga poste Gandiaye ñëw fii ci poste bi même les villages de Nir Gandiaye Kër Alpha Soptu fii ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw peut-être dañ si gis seen bopp prestation bi accueil bi moo tax ñu préféré fii. amu leen yenn ay jafe-jafe par rapport ak seen wàllu liggéey ki yooyu noonu ci biir hôpital. waaw loolu moom du ñàkk jafe-jafe moom du ñàkk ci mbirum liggéey mais dañuy gérer on donc donc voilà ñu xool. Eh, ma ñëw ci wàllu ki depuis deux mille deux mille la ne deux mille euh, deux mille quatorze. depuis deux mille quatorze ci weeru koor gi am na initiative bu mu jëloon ne képp ku fi amati doom doo fay le ticket de consultation ak lakk accouchement bi léegi moom moo koy moom moo ko gérer yow say médicament rek ngay fay depuis deux mille quatorze la. ba deux mille vingt et un bi doom ji aussi bi mu toogee Cheikh Ibrahima tamit bi mu toogee euh, ci place moom tamit loolu la continuer li papaam defoon loolu lay def ku fi am doom doo fay ticket doo ak accouchement ak aussi soxnaam bi nga xam ne moom moo koy gérer kiy gérer hôpital bi soxnay sëriñ bi la woon mooy madame Zahra këram mu ngi nale moom aussi ku jàppale malade yi la na leen toggal ñu lekk euh, ci ci poche Euh, dina leen aussi jàppale ci mbiru paiement des fois boo dem bi am ay yenn difficultés yi bu ko yëgee day ne tu tu le sur mon compte mu mu fekk loolu waral tax na sax mu bëri ay turandoor ay kii même sax sëriñ bi da doon def la doon jàppale nit ñi ci yu bëri bëri y a le volet social mooy xam nga ko c'est le volet social parce que des fois nit dina ñëw hôpital am problème na nga ñëw ñu jël en charge fayal la jox la nga lekk. Euh, xam nga loolu euh, lu lu am solo la solo la léegi dina tax loolu nit ñi dinañ sawar a ñëw ak aussi personnel bi parce que hôpital bu ñu nekk bu personnel bi bu ñu aussi parce que malade fi mu ne ni bu ñëwee boo ko accueillir euh, accueil ak un accueil favorable. mooy ñi ngay liggéeyal ñi nga xam ne say collaborateur lañ say confrères. donc ñoom tam liggéey bu am solo lañu fiy def. loolu liggéey bu am solo la parce que am na ci ñoo xam ne ñu ngi jógee côté bële dañ doon plaindre li tax ñu gën a bëri malade dañ doon plaindre ñu ne foofu ñu leen doon kii traitement bi demeewul noonu da ngay ñëw dañ lay def yenn yi. léegi nag bu ñu lay def yenn yi nag vraiment mu métti la nga ne xaaral naa ma daw ñëw fi nga xam ne dinaa fa am jàmm dinañ ma fat dinañ ma wax bu neex dinañ ma accueillir comme fi parce que accueil rek dina soulager malade dina wàññi lu bëri ci jàngoroom. chauff am nañ deux chauffeurs aussi yi nga xam ñoom ñooy assurer kii bi waa transport bi ak aussi oto yu ndaw yi nga xam ne parce que ambulance bi nu rouler tout le temps il faut dina am ay besoin ngay jënd ay garab yooyu. wala nga bugg am yenn course yoo xam ne pour hôpital bi ambulance bi du dem léegi dangay jël yeneen oto yi nga dem waaw noonu la fee am na deux gardien poste gardien yi waaw. ci bi ñaari gardien waaw nga xam ne moo la salle de xam nga fan la ñu fekkoon personnel bi foofu lañ waaw añ ay reer yooyu loolu lañ leen ki yooyu yëpp aussi euh, c'est sur fonds propre euh, euh, kii du marabout ñoom ñoo assuré loolu yëpp Euh, bi muy dundu moo ko assuré bi mu gaañoo aussi doomam bi nga xam moom moo toog moo assuré yëpp daa mun a xam ne fees na place am fi papaam ki yoon ta fi papaam jóge woon tànk boobu la jóge vraiment voilà. kon ñu jógee ci hôpital bi rek dama xool beneen bërëb boo xam ne bokk na ci réalisation yi nga xamante ni moom moo am ci dëkk bi di Sagne Bambara. ginnaaw ab l'hôpital ñu daal di wàcc si waat fi nga xam ne moo di bërëb bi ñuy joxe xam-xam maanaam jàng ak njàngale wàllum formation mu ngi fi tamit day am ci dëkk bi la bokk na ci jëmm ji ñu fi fekk sëñ bi tur bi ak sant bi naka maa ngi tudd Alpha Hama Diallo euh, di doomi Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo bu Sagne Bambara. voilà gis ne bërëb bi moom tam bokk na ci fi ñuy waral di former ay xale euh, moom lu mu dala kii ci biiram euh, daanaka. waaw centre bi mooy ñoo ngi ko duppee Soxna Umul Xayri di way jur Maulana Cheikh Abdoul Khadir Jilani fii nag lan lañu fiy jàng mooy jàng métier ñaw ak togg ak cuub mooy jigéen ñi nga xam ne maanaam seen jàng dafa soriwul euh, xam nga yàlla dafa bind doomi aadama waaye yemalewu leen nit dana am yéene àgg fu sore sori ci xam-xam mais yàlla du la ko yombalal euh, boo amee na fi ngay jàngee métier. moo tax Cheikh Mouhidine daal di defar béréb bi pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàng métier ngir lan ëllëg bu ñu demee sëy seen borom kër mënu leen yor à cent pour cent fekk ñoom yàlla def nañu am métier ñu mën a dimbale seen borom kër ci kër gi dimbale seen bopp seen soxla ku ne xam na ne jigéen soxla dafa xaw a bari looloo tax seex Cheikh Mouhidine daal def fii indi ay machine pour jàngal xale yi ñaw waaw saal bi ci la bokk moom soxna Aysatu Jànqa euh, di wayjuru Mawlana Cheikh Ibrahim Niass al Kawlaxi Ibrahim Niass bi waaw soxna maam Fawad Wele mooy wayjur maam Seydi Alhaji Malick Sy radiallahu taala anhu saal bi moom lañ ko tuddee bii nag ñoo ngi ko tuddee soxna maam Jaaratullahi Buso di way juru jant njooloor bi mooy Maulana Cheikh Ahmadou bambal radiallahu taala anhu waaw incha allah. donc din manière général daal eh, njàngale mu yaatu moom moo nekk ci bërëb bi lépp jëm ci li nga xam ne moo di ay wàllu métier. Mm-hmm. métier cuub am na fi jàngale jigéen togg am na fi jàngal ko tamit ni ñuy ñawee mooy col ko dafa bokk ci doome aadama. donc lii daal d'une manière générale donc Thierno Ba moom moo nekk ci bërëb bi ñu defee wàllum éducation ak formation ci bërëb bi nga xamante ni wala dëkk bi nga xam ne moo di Sagne Bambara donc ñuy jàll rek xool eh, lu bokk ci jumaa ji après rek ñu gën a ñëw ci détail mais tam ñeewal li nga xam ne moo di histoire dëkk bi ci ni mu gën a ginnaaw bu ñu jógee ci benn centre de formation donc yegg si waat nañ ci fi nga xamante ni moo nekk maanaam CIP CICP ba ni ngay amee sa baccalauréat mën nga ko amee ci biir dëkk sëñ bi ba léegi ci lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale mu mel ni sëriñ bi joxoon na ko gëdd gu mat ndax bërëb bi yaatu na lool te tamit damu dal di ëmb ci biir sakkan na lool. xam nga ba léegi mooy fu ñu nekk nii mooy école bi euh, bokkoon na ci mébét yi gën a rëy ci sëriñ bi ndax Cheikh Mouhidine ku ko wax jàng ngay ñu ko wax. ba tax na ci kaw loolu euh, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant yàlla di ko yónnee lan la ko njëkk a wax iqra mooy jàngal kon doomi aadama boo juddee rek lan ngay njëkk a def ci àdduna rek mooy nga xam ndax nga mun a jëriñoo sa àdduna loolu moo tax ñuy naan ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatu qiraa looloo tax sëriñ bi école bi euh, lépp loo xamante ne da ko amoon ci doole ci ay pexe def na ko ngir lan xam-xam mun a jëm kanam ngir lan école bi mun a tëgg ay génération yoo xamante ne danañ mun a yóbbu message yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, fu sore sore donc bërëb bi nii moom d'une manière générale moom moo yor ay classes yu bari te wuute ci ci ci ci biir. waaw école bi euh, dañ fiy def certificat dañ fiy def BFM dañ fiy def ba ba bac ku fi génn ñu yóbbu la ci université bi ICAT soit ñu yóbbu la Ndar. wala yeneen wala boo amee possibilité nga dem jàng ci réewu arab yi euh, incha allah taala. ci côté boobu sax laa bëggoon ñëw mooy jàng ci réewu arab yi dañuy faral di gis ne mhm. yéen ñi am loolu dangeen ngeen faral di jox jàppandal gu mag a mag ñi nga xam ñoo di ay ndongo yi fiy génne ba di leen dimbale sax ñi dem bitim réew mhm. loolee ba léegi mënees na nekk luy wéy. Euh, waaw xam nga euh, yokku xam-xam moom mhm. doomi aadama loo ko mënta def. jar na ko dafa xam te nangoo lu mu xam mu mu jox ko doomi aadama yi ci mun a jëriñoo euh, seen dund mun a xam message yu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mun a xam seen jëmm bopp nu ñu mën a dundee ci àdduna bi waaw. jërëjëf jërëjëf donc ñu wéyal rek xool yeneen bërëb yu bari te wuute tamit ba léegi ci dëkk bi de di Sagne Bambara. فأنت الأس للبرج المعالي نور في ربع الخير صالح لا شرف كذا ba léegi ñu toll ci yenn bërëb yi nga xam ne moo di ci diwaanu Sagne Bambara fii tamit euh, sëñ bi euh, bokk na ci bërëb yi nga xam ne tamit moom moo ko sosal ba pare sancal ko boppam. waaw fu ñu jógee nii fu ñu jógee mooy Sagne Bambara nga xam ne sëñ bi dundam yëpp lu ci ëpp fala ko def waaye juróom fa la nekkoon ay maamam fa nekk waaye fu ñu jëm nii mooy Madinatul Jeylaani dëkk bu ñu duppee turu Maulana Cheikh Abdoul Khadri Jilani nga xam ne mooy wasilam mooy sëriñam ci yoonu Khadriya Cheikh Mouhidina moo sos dëkk bi tànn nag bis bu wàccee liggéey pour ñu indi ko fii ci dëkk bi looloo waral yàlla euh, bu mu ko euh, kiyee euh, tawam bu baax bi di Maulana Cheikh Ibrahim di xalifam ànd ak ay rakkam ak ay soppeem ak ay taalibeem indi ko fii ci eh, barabam bu mujj ah, ñoo ngi toll nii man natu jëlaan ñoo ngi ci bunt bi nii. bunt bi lañ toll nii mais ci kanam foofu lañ ko denc. waaw ci kanam jumaa baa ngi foofu jumaa bi ngay njëkk a jot. Ah, jumaa bi ñuy jàkkaarloo nii. waaw jumaa bu ñuy jàkkaarloo nii ah, Cheikh Mouhidine moo ngi tëdd ci diggante jumaa bi ak zawiya bi fuñ ko denc nag bu muy dund. Euh, at bu nekk Cheikh Mouhidine 15 mars wala 14 mars daf fi am ziar bu mu fi doon taxawal fu mu doon tegee séesam la wane ne bis ma wàccee liggéey ngeen denc ma foofu. foofu nag moo waral ñu indi ko fi loolu moo waral ñu indi ko foofu. fii nag mooy dëkk yi Cheikh Mouhidine Alpha Samba nag. kon ñu dugg ci biir bërëb bi rek wan leen euh, nekkin bi nu mu mel ak tamit li nga xam ne moo di tolluwaay jumaa bi ci dëkk bi nga xamante nii moom la ñu dencee. Madinatul Jeylaani وهب bërëb bi ñu jàkkaarloo nii mooy bërëb bi ñu ko denc. mooy waaw mooy bërëb bu ñuy denc Cheikh Mouhidine waxoon naa la ko sànq ci biir wax euh, bari na mu doon conférence laata muy pare mu doon wax taalibe mi ak ay soppeem. ne fi ma toog nii mooy sama bàmmeel sama kaw bàmmeel laa toog nii. loolu ñu wàcc rek xool. incha allah xool bërëb bi. fii tànneef la. boo fi yegsee di dugg. da wóor ne. nekkut loo xam ne nit mu fi xaar ay milliards wala koom wala lu mu mën a doon. boo ko xoolee xam ne fii yàlla ay kese moo fi nekk. jaamu yàlla rek la fi nit mun a def te nag tànn nañ jaamu yàlla bi ci gën a ñoŋ. gën cee wóor mooy bi nga xam ne da mën a wéet mën a wéet ak sa boroom loole bokk na ci li nga xam ne moo tax laa joon dëkk bi ñu doon ko wax ci jamono booba si xay keroog bi ñu tegee xeer bu njëkk bi mu tuddee ko saxaadatu ard kon moom moo soppi tamit moo soppi tur bi. moo ko fàkk tamit. moo ko fàkk. ba pare dénkaane fi boppam. dénkaane fi boppam. dénkaane waale ñu ñu ni tamit ndax noon na romb ngeen armel yi ci yoon bi li ñu njëkk a def mooy armel ndax xam na ne comme sa juddu ku ne dee moo ciy topp. mujjte dee la njëkk a bind ka ne dund moom mu uutal ñu pàkk boo xam ne képp ku wàcc liggéey rek mu ne na ngeen ma ko ande fii ne incha allahu taala suñ borom sayyidina sala sallam dig nañu ko képp kuñ fa dënk texe nga képp kuñ denc ci pàkk boobu rek texe nga kon moom bu dénkaanee fi boppam ñu bokk nañ ci ñi mu dénkaane fii ci bërëb bii nii ak suñuy njoboot ak jullit yi nga xam ne yi askanoo nañ ci réew mi sax lu dut réew mi ndax nit faatoo na bitim réew ñu andi ko Touba yaakaar a tax yàlla ja daan maye loolu nag tey la ko gën a bëri la. léegi mu ngi fi. te ba léegi mu ngi voilà donc Thierno Ba ñu bàyyi ko rek mu xool tuuti rek ci li nga xam ne bërëb bi noonu la bindoo bu ko defee rek euh, waaw voilà bisimilah. voilà donc bërëb bi moom moo nekk nii donc bërëb bi moom la ñu euh, fi la sëñ bi daal di rek maanaam tëdd. Eh, ginnaaw bi ko santaanee ba noppi. waaw fii de la ku baax ki tëdd nekk lu diis lool bés bi nga xam ne bii nii daan nañu dënk ne su ma wàccee na ngeen ma denc fi di battali di dënkaane di battali di dënkaane di digle waaye lam doon wax di tàggee boppam jamono boobu suñu xol. suñu xel mënut nangule muy wax donte dëgg la. ñu gis ne xel gu neex mu ngi fi. Mhm. bërëb bi sedd loolu tamit. waaw euh, liggéeyal yàlla rek a wóor. yàlla moom ku ko liggéeyal keppaar mu fayee la guddi gu lëndëm këris te it nag loo fi tudd bu ko yéem day dis ci sama kaw ndax jëmmi yàlla jii tëdd fii buñ dajale woon jamaa yi ci àddina bi billahi wallahi wa tallahi tabaxee ko taxul ñu dab valeur am ndax loolu objet kese la kese dafa fer ci soow ñu jëlee ko Mali andi ko ba ci góor gi di wayjuru sëriñ bi tëdd kooko tàggat ko bu nem fiy jóge mooy jëmm ji ñu di ko wax Modické Traoré bisimilah euh, euh, tur bi ak sant bi. man Morka Traoré laa tudd. moom moo la def sénégalais mën nañ ko waxee. <laughs> waaw léegi moom waaw <laughs> mun naa doon sénégalais. ñaata at yaa ngi biir Sénégal ak ñëw fi ñëwee wu ko nu mbir mi nu mu demee woon seen diggante. man ba ma fi ñëw ak léegi laa fi ñëw incha allah waaw bi moom bon alhamdulilah man suma wax du mën a bari si seen bi. comme li Badiane wax rek loolu moom doy na lépp. lépp daal moom la. waaw suma lépp moom la suma lépp moo ma jàngal moo ma lépp waaw. Mhm. Mm. lépp lu nekk ci moom moom moo ko def ci moom. rawda bii ngay gis ni moom ci jëmmi boppam. diir bi ñu tabaxee lii booba ñu def ko cinq bardaas ñu xam ne fii la ñuy denc sëñ bi keroog ba ma defee bardaas ba noppee caabi yi moom la ñu ko jox bés boobu la fi tàmbalee bu bés bii ngeen ko fekk fii tey moom kese ak sëriñ bi. donc yow dooy jóg daal ci bërëb bi. bon ah bon bariwul bariwul bariwul fii laa ne rek presque. Euh, loo xam ne nii yéen ñaar jaar na ci seen diggante depuis nga nekk fi ba léegi loo ñu mën a wax benn ane anecdote boo xam ne bu remarquable lay doon. man nag wax daf ma xaw a bu baax moo tax li Badiane wax rek baax na incha allah. ci réew mii maa ko wax. suñ borom ak may dégg jëmm jàng may dégg ku fi nekk dara ku ne ñëw nga fi mbaa ñu ñëwal la fi yaa xam nag koo doon ak noo ko doonee foo ko doonee du ci nguur du ci lislaam du ci du ci leneen réew mi képp kuñ fi tuddoo tekki nga fi dara nekk nga fi dara ñëw nga fi mbaa nga yeble mbaa sa njaboot ñëw kon Thierno Ba ak mbokk internet Seneweb yéen a ko gis donc jëmm ju tedd ji daal di tëdd fii ci bërëb bi di xeeñ lu neex lool sedd guy donc tabax boobule ak waxtaan bi nga xam ne mu la doon góor gu baax gi daal di fësal bokk na ci tabaxaay bi nga ne am na ko tam ci àdduna wërngal këpp noonu lañ ko mën a duppee bokk na ci ne kéemtaan yi nga xam ne jot na ko wan ci àddunaam donc ñu daal di wéyandi rek ci ay yeneen bërëb bëri te wute lépp dala bokk ci wàllum jàngataan di dëkk bi di saraf الإمام إمام العدل في الثاني جمالي سرور بربع الخير ثاني لا شرفك ضمت لآلي خليل كل بذا بصر الفتر سريرة من له جمال mbokk ñu toon di seen ba léegi ñu ngi ci li nga xamante ni moo di découverte bi ñu leen amal ci dëkk bi di sañ Bambara ñoo gën a wàcc si nag tey ci biir bërëb wala sax biir kër bi nga xamante ni bokk na ci borom dëkk bi wala ci ñi tabax dëkk bi sax moom am koo xam ne jege ñaarem la ànd ndooram waaye tam nekk li nga xam ne moo di mbokkam ñu fekk ko tey fii moom tamit ci biir këram sëñ bi ñu ngi lay nuyu tur beeg sant bi. alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen di fay eh, di leen dalal di leen tatagal itam Euh, man maa ngi tudd euh, Oustaz Omar Ibrahim Al Mourchid euh, nekk kenn ci taalibey Cheikh Mouhidine nekk kenn itam ci njawootam fii ci kër gi kon ñu ngi leen di dalal di leen wax bismillah. ñu buggoon rek xam wala déglu bu baax a baax ci lu ñëwal jëmm ji ni mel lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw Cheikh Mouhidine comme li ma leen mën a wax ci moom rek. mooy ayatun min ayatillahi c'est-à-dire euh, kiimtaan la ci kiimtaan yi nga xam ne yàlla da koy feeñal ci jamono euh, pour am ñu mu jaarale ci loxoom mën a baax mën a tekki mën a doon dara moo tax même soo xoolee yàlla mu ngi doon annoncé kàddu gu mel noonu ne qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa xayru mimma yajmaun kon am gi ñu ko yàlla amalal euh, jox gi ñu ko yàlla jox ci mbaaxam yërmande yàlla la ci ñun euh, jëmm joo ne am ko dund moom xam ko moo gën àdduna ak li ci biiram ndax jëmm la joo xam ne euh, mënoo ko joxoñ baaraam ne fii la euh, sëñ bi suma leen ko doon définiral kon duma wax lu la yàlla waxoon wala yonent bi waxoon ko benn ci ay saxaabaam ne ko anta ummatun yow doo benn nit waaye benn nation bu taxaw nga sëñ bi dafa ëppoon nit waaye àdduna bu yàlla taxawaloon la ci mboolem anam ak ci mboolem wàll waaye ak ci mboolem lu àddinaay soxla danaa leen ci jox benn exemplaire bu gàtt mooy sëriñ bi bi mu ñu doog léegi ci ñaar at la war a wala at ak genn wàll waaye ci biir at ak genn wàll boobu am na ay événement yoo xam ne xew nañ gannaawam saa à biñ ko denceeg léegi am na événement yu bëri yoo xam ne traversé nañ àdduna bi mais da ngay xool événement yooyu tey nga xam ne ñoo traversé àdduna bi référence wala guide bi nga xam ne moom mën a orienté waat nit ñi ba delloo leen ci limanité benn extrait bu ñeenti kàddu la ñu dagg ko dugal ko àdduna bi dégg ko mu may leen ak dal. mën naa leen sëriñ bi gaa jàng na dox na 33 pays wala lu ko ëpp faculté bu nekk sëñ bi dugg na fa. université yu bëri def na fa ay conférence jaar na ci ay réew pays arabe yu bëri mais ànd ak lii yëpp jaamu yàlla am également. def ko may loo xam ne même ñi ko doon jàngal wala université yi mu génnee woon sax amaat na xam-xam bi ko yàlla may ci minal la dunu yaat muy xam-xam yoo xam ne ci yàlla lay bàyyeekoo direct du am intermédiaire te jaamu yàlla ragal yàlla di ko may nit sëñ bi dafa am wiraasa muy ndono gu ngand ci côté boobu encore moo tax nit ki dana tolloog moom ci ay at mu gën la gudd bët nit ki mën na tolloog moom sax ci xam-xam mu gën la am ouverture ndax bëri na sax yow texte boo bind jox ma man ma lire ma xamee ci texte bi loo xam ne yow ko bind xamoo ko won waaw kon ouverture bi bi ko yàlla mayoon ragal yàllaam sax dafa dafa dafa mel ni sooy seet da nga naan moo ko mayoon sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Cheikh Ibrahima Diallo di njaboot ci Cheikh Mouhidine euh, Alpha Samba Diallo euh, bokk ci ay njabootam incha allah waaw alhamdulilah rabil aalamiin Bambara boo ko déggee. ci cosaan gu njëkk gi fii ay tool la woon tool yoo xam ne am dëkk bu nekk ci gannaaw fii mu tudd seexaan seeni tool la woon waa seexaan ñoo doon bay ci suufu saañ yàlla dogal suñu mag ñu jóge woon penku maanaam Mali ñëw senegal ci jamono bi ñuy tegraay bi jóge dakaar jëm ko mooy dakaar Niger bi jamonoy tubaab yi ñu indiwoon leen fi ci travaux forcé te ñu nekkoon Kaolack di suñuy mbokk bambara mbokk turka mbokk yooyu nga xam ne jamono yooyu dañ tubaab bi dañ doon dem ci dëkk africain yi di jël ay nit di leen indi ci réew mi ngir ñu teg raay bi war a jóge dakaar jëm ba Bamako ñi fa jóge woon di ay lakkkat dajaloo woon Kaolack ñoom la yàlla dogaloon ci jamono ñu utal leen bërëb bi ñu mujj fi dëkk euh, waaye laata ñu fiy dëkk Sing Sing lañ njëkkoon a nekk Sing Sing boo jógee Kaolack euh, di ñëw saañ wala di dem Gànjaay dina am benn dëkk booy jot noonu sa càmmoñ foofu mooy Sing Sing foofu lañ njëkkoon a dëkk waaye bi ñu demee ak xataayu jamono ak xataayu dëkk bi mbooloo tàmbalee bari ci lañ leen toxal jëlee leen foofu di Sing Sing indi leen fii ci Sagne Bambara kon ci tënk lu ndaw rek Sagne Bambara foofu la cosaanoo euh, ay saañoo lañ fi doon bay am na dugub buy tudd bu tudd saaño euh, am na dugub bu tudd basi euh, yooyu noonu mais nag ci suuf si saaño lañ fi doon bay ñu ci turu saañ bambara jóge mooy suuf soosu nga xam ne dañ fay bay li nga xam ne mooy dugubu saaño mu ñu taan ko saañ saañ saañ donc bi mu demee ba bambara dëkk fii loolu moo indi saañ bambara saañ bambara saañ bambara euh, mais nag ñu jóge woon penku dekkoon Kaolack ñoom ñoo mujjee sos dëkk bi euh, ci ndimbalu yàlla nag suñu maam di Cheikh Alpha Samba Diallo euh, jóge ci Mali fi ñu naan Massina nga xam ne mooy maamu kër gi mooy maamu Cheikh Mouhidine ndax moom meññ ki nga xam ne mooy waajuram bu góor ci la ñuy dëkk fii ak ñoom. loolu moo waral cosaanu sëriñ bi fii ndax waajuram bu góor tamit cosaanam fii la loolu moo waral ñoom ñun ak njaboot gi ñëpp ah, bawoo koo ci dëkk bi kon ci tënk loolu mooy li nga xam ne mooy cosaanu dëkk bi di Sagne Bambara. waaw moom nag mi ngi ganee àddina eh, fi ñuy wax Dakar eh, ci Grand Dakar foofu la ganee àddina ndax waajuram bu góor mus na nekk dakaar li waral waajuram bu góor nekk dakaarit it eh, maamam maanaam maamu Cheikh Mouhidine mooy papaay papaam. Euh, bi mu gaañu dafa bàyyi baayu Cheikh Mouhidine mu nekk ci juróom-ñeentaat maanaam juróom-ñeentaat euh, bi mu motalee njàngam juróom-ñeentaat mooy baayu Cheikh Mouhidine boobu maamam boobu baayam dënk ko ne ko euh, Cheikh Alpha Hamma saa su ma génnee jamono nanga nga na nga gën a yaatali sa alwa ndax at yi ma lay bàyyee atu tuut tànk lay doon waaye boo jàngee ba noppit bul ñëw rek toog sama xilaafa demal nga xam àddina nga miin àddina nga gis ngay doxal sa bopp ndax boo jógee ci daara ja rek ñëw toog euh, da ngay mujjee nekk daanaka euh, <laughs> li ngay xam ci jamono mën naa bëri côté universel bi ngay wax nag loolu xam-xam la goo xam ne xam-xamu xam-xam bu ko yàlla may la euh, yenn yi njàng la waaye yenn yi tamit mayug yàlla la ndax doomu aadama yàgg na def université yu kawe mais amaan na ci zahir moom xam-xam yi mu am euh, néew na nit am ko doomu def na njàng yu xóot a xóot waaye moom may gim ci am may yàlla la rek may yàlla ñu ci bëri côté universel boobu lañ gis mooy côté xam-xam bi mu am euh, buy wax ci science buy wax ci géographie buy wax ci littérature buy wax ci diine buy wax buy wax ci ci yeneen ak dëggoom ak passeefam ak euh, discours am ni mu nekkee discours goo xam ne gu dëggu yii mooy yi nga xam ne alhamdulilah euh, ci dundam doomu aadama yu bëree bëri ci lii lañ jaar pour xam ko loolu nag njàngam la waaye ak mayu yàlla goo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala jagleel na ko euh, di ñaan yàlla gën a dolli leeram di ñaan yàlla gën a dolli incha allah barkeem euh, ci gannaawam ci gannaaw njaboot gi yëpp kon ci tënk lii mooy li nga xam ne mooy jaaruwaayam ci yu ndaw ndaw incha allah. darixu cheikh la daa shajaril gi gis-gis afiirul xayri zu sabbin hutaali rabiul xayr rayhaanul quluubi